dal nag ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi campagne bi nag mu ngi wéyandi fépp ci biir réewum Sénégal candidat yi ku ci nekk yaa ngi janook askan wi wax leen sa programme waaye nag am na lu nga xam itam daal daanaka suuf mu ngi ciy xaw a takkee muy diggante coalition sàmm sa kàddu ak ñamu àndal ci intercoalition ak itam ak ña nga xamante ni daal ñoom ñoo di waa Pastef rawatina nag ki nga xamante ni moom moo di Abbas Fall mi nekk ci Ndakaaru digganteem ak Barthélémy Dias nag jamono bii bu dina ci gën a xeeñ ndax nag daanaka sa Bart ak Abbas ku nekk yaa nga joxoon sa morom nekkat fitna bi nga xamante ni jamono bi nemmeeku nañ ko ci làngu politique bi yaa ko andi démb nag sa Barthélémy Dias daal dina jenn ak taskatu xabaar yi ñaadu baax a baax ci itam na nga xamante ni daal noonu la jàppee ni que dañ koo jaxat-jaxatee siège am boobee ci ay vidéo yu nga xamante ni daal wane nañ ko gis ay nit yu nga xamante ni dañoo yor ak seeni ay ngàndaay waaye itam sànni sax la nga xamante ni moom moo di ay tàkk-tàkk ba mu daal di lakk siège boobee mu daal di tàkk jëppeet lu ci mënti am daal moom Barthélémy Dias daal di itam dànkaafu jëwriñ ga xamante ni moom la ñu dénk wàllum biir réew mi nee na nag jëwriñ nee na nag kookee nga xamante ni sax daanaka moom moo dal di organiser élection yi kookee daal bu dee faxe na ba ka nga xamante ni wala ña nga xamante ni ñoom ñoo def jëf joojee ne daal di fanaan seen kër mu xam ni nag Sénégal li ñuy naan démocratie ba tey ji daal na des ca boobee jamono ak itam moom Abbas Fall daal li mu jàpp ret moom moo di mbir mi daal daanaka dañoo weex dunku ret waaye itam sax moom mi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay militant am dañ leen daal di attaqué gaañ leen ba sax hôpital la ñu daal di mujj lu ci mënti am daal jamono bi ku nekk ñoom yaa ngi koy jiiñ sa morom kat ne fitna gi yow yaa ko fi andi lu ci mënti am daal ca boobee jamono nag moom Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom moo di bopp la nga xamante ni moom moo di coalition Pastef nag moom moo ngi wéyandi ay campagne am mi ngi woon sax ca diwaanu Mbour amal fa ab meeting bu yaato yaatu moom nag li mu jàpp rek moom moo di jamono bi daal opposition bi amuñu programme moom moo tax nag ñoom ku yendu ci ñoom daal ci dërëm googee nga yendu di ŋawte ŋawte waaye nag sax moom Ousmane li mu jàpp itam daal moom moo di eh, ku mel ni Barthélemy Diaz am na nga xamante ni daf ko daal di mos loolee saa itam moom moo waral yéen saay eh, saa yi waxee nag daal di wax ay toj toj waaye nag moom Barthélemy Dias itam mel ni sax ku déglu kàddu yooyu daal di koy delloo Ousmane Sonko nekk ne moo am na loo nga xamante ne sax bis bu ko waxee réew mi dina daal di tas tasar campagne bi daal kon jamono bii ku nekk ak fa nga nekk rek yaa ngi sànni xeer sa morom ngir gën a wane ne que nag man maa nekk ci dëgg ku jege nag ñoom liñ jàpp daal moom moo di ña xamante ni ñoom la ñu fal ñooñee mën nañu ay cuune la ñu basaa itam daal fi yóbbu réew mi jamono bii kenn xamu ko ña nekk ci bopp réew itam daal jàpp ji ku nag ñoom wax rek lañ fi nekkee waaye tam amuñ benn programme bu nga xamante ni mën nañ koo andil eh, ci ngir soppi réewum Sénégal moom Ousmane Sonko nag nee tey jii la gën a am confiance tey jii la gën a xam ni daal la nga xamante ni moom moo di élection yi nar a am fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ci ngoon ñoom ñii ñoom ñoo koy daal di gagné li mu jàpp daal moom moo di amul benn sikk saaka bu nga xamante ni daal nañ ko ci nemmeeku moom Amadou Ba itam di njiital eh, coalition eh, jàmm ak njëriñ moom itam mu ngi woy ni def la nga xamante ni moom moo di ay sorteem ci diwaanu Sénégal fépp nag li mu jàpp ret moom moo di ña nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk fii ci bopp réew mi dañoo tëlee xamuñu Sénégal nag ci guute lañ ko dugal waaye nag itam sax xamuñu sax fan la ñu nar a yóbbu réewum Sénégal loolu nag moo waral Amadou Ba moom itam daal di taalal loxo sénégalais yi ngir ñu daal leen di jox confiance daal leen jox la nga xamante ni moom moo di majorité député foofee ca pencum ndaw réew ma ngir ñu mën a soppi réew mi di Sénégal ñu daal di itam àddu ci beneen mbir daal di wax nag ci sëy yu tas yi nga xamante ni daanaka nemmeeku dañ ko fi ci diwaanu Sénégal nga xamante ni doo toog bis te déggoo ñu naan ab sëy na ndax soxna si moom di wuyoo ki turu Aba daal eh, di toll ci juróom fukki ak benn dëkk foofee ne eh, ca Yoff Laayeen moom nag sax daanaka mbiram ak jëkkëram eh, ca kanamu yoon la daal di mujjee moom soxna si nag daal di itam di topp la nga xamante ni moom moo di fiiraange daal ba daal di ñëw jaxat-jaxatee kër ga nga xamante ni fa la jëkkëram bi ko takkoon daal di dëkk waaye itam sax dal di itam tasaare lépp li ko war a moom moo di borom këram boobee dafa daal di takk ab xale bu nga xamante ni daal daanaka xale bu ndaw ndaw la moom nag ñàkk mën supporter yooyee ne daal moom moo tax itam mu daal di ñëw ci kër rek jaxat jaxatee loolu nag moo waral sax moom mbir moomee daal di mujj ca kanamu yoon nag waaye soxna si nag moom sax daanaka nee na jamono bii puusul paasul donte nag borom këram may na ko baatam nag moom nee na du génn kër googee ndax borom këram daal fi mu ko teg du benn yoon ci dëgg ndax nag borom këram daal bi muy metti ñoom ñaar ñoom ñoo nekk ndoon ba tey jii daal mbir mi yëpp neex mu bëgg a jël ab xale bu ndaw daal di koy teg ca dam lu ci mën tam daal mbir mi daal ne agg ci loxo yoon fu muy mujjee ak wànneen tam daal di ñëwaat ak yéen ci faram-fàccee di itam ci beneen mbiru wax itam ci trafic de faux billets yu nga xamante ni daal nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu Sénégal rawatina nag diggante foofee ne nga xamante ni moom moo di Mariste jëm itam yeneen ko yu nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk ci diwaanu Ndakaaru Njaay ndax nag ñaari nit yu nga xamante ni daal ñoom foofee ne eh, ca mariste daal dañ leen daal di teg loxo ñoom nag li ñu yoroon daal moom moo di ay coupures yu faux billets yu bëree bëri yu nga ni daal ci xayma toll na ci eh, quatre-vingt mille dollars maanaam juróom fukki juróom-ñett fukki junni ci li nga xamante ni daal moom moo di dollars waaye itam nag loolee buñ koy xayma ci CFA toll na ci ñeent fukk ak juróom-ñett millions ci suñu ñoom ñaar ñëpp nag daal daal lañ leen jël yóbbu leen ca kanamu àttekat ba waaye itam nag ñoom sax dañ leen daal di mujj placé euh, su mandat de dépôt ngir xam ana fan la wànnent di mujj ak i gëtëm keneen itam ku ñu daal di teg loxo moom moo di ab charretier bu nga xamante ni daal moom mu ngi wekki turu MC ñu gën koo xam ki turu Moïse moom nag sereetam boobee daal la daal doon jël daal di euh, sonal loolu ña nga xamante ni ñoom ñoo dëkk euh, ca banlieue ba ndax nag ki la doon yéeg waaye itam saa ànd ak ay nit ñu nga xamante ni dañuy yor ay ngàndaay moo tax saa moom nag bi ñu ko daal di jàppee ba defee rek li ñu koy toppee rek moom moo di association de malfaiteurs waaye itam sax euh, violence et usage de moyens roulants ku et blessures volontaires moom nag sax daat nañ koy présenté ci ki nga xamante ni nag moom moo di procureur waaye nag liñ koy toppee daal moom waaye itam moom moo daal doon sacc ay alal yu bëree bëri ak jumtukaay yu nga xamante ni seen ay borom daanaka suba teel lañ daan génn seen kër ngeen dem liggéey moom nag jamono bi itam daal daan nañ koy téye téye ngir xaar ana fan la wànnent di mujjee ak i gëtam foofee ne ci diwaanu Yang-Yang itam mbir yu doy waar moo fa daal di am mu di ñaari cousin yu nga xamante ni daal maanaam ñaari doomu nijaay ak doom nga xamante ni nañ daal ñoom ñaan ñëpp ay sàmm lañu gannaaw nag ab coow lu gàtt gàtt bu nga xamante ni nag moom moo leen daal di boole kii di wuyoo ki turu Siré Ba moom nag moo daal di faat Jibi Demba Sow ñoom ñaan nëpp nag daal di bokk benn kër waaye sax ñu ngi ñuy xamante nag ka nga xamante ni moom moo di Siré Ba bi muy daal di faat doomu bàjjenam boobee dafa fekkoon nag mu daal di màndi ba nga xamante ni sax xamul fa nga xamante ni foofee ne la nekkoon ndax ndax nee nañ moom ab parfum bu ñu naan bul faale loolee nag daal di jël boole ko ak la nga xamante ni moom moo di ay jumtukaayam daal di koy naan ba xamul sax fan la nekk loolu nag sax moo moom di Siré Ba am mbir mi nag mi ngi amoon juróom-ñett waxtu waaye itam sax moom mi nga xamante ni moom moo defoon loolee dafa daal di woon daw ba niñ ko daal di tegaatee loxo li mu wax enquêteur rek moom moo ci dafa mujj am woon am gàcce ci kanam ay mbokkam ndax koo kee ne di jibi daf ko daal di toroxaloon ci kanam ay mbokkam waroon nag ñoom ñaar dóorante gàcce daal di am seen diggante ba faatu bakkam daal di ci am moom mi di siré nag daal nañ koy eh, defeere ca parquet ba ngir daal di koy placer su mandat dépôt xaar nag ana ban ndogal la yoon daal di def ci ndoddam itam ñu daal di wax itam ci beneen mbir daal di wax itam ci ki nga xamante ni daal moom dafa daal di sàcc téeméeri million ki ay koppar loolu nag sax mi ngi am sax ci ay mutuelle de santé yu nga xamante ni daal wala ay mutuelle d'épargne yoo xamante ni daal moom mi di wéyoo ki e Montero ci yooyee la doon yëngatu moom nag li ñu ko toppee rek moom moo di escroquerie au préjudice de ses clients loolu nag moo war a sax moom sa moom waajoojee dañ ko daal di jàpp rek yóbbu ko ca kanamu yoon mu am nag ay jigéen yu bëree bëri yu nga xam te ne nag ñii seen ay natt lañ ko doon dénkaane waaye itam ñenn ñi saa itam nekk nag ay nit yu nga xam te ne sax yenn saay dañ doon liggéey alalu mbooloo daal di koy denc foofee ne moom nag waa ji furaas daal di xëddeem jël lépp daal di koy yóbbu moom nag jamono bi moom itam yoon daf ko daal di téye téewum négandik ñu daal di itam delluwaat ci mbiru politique daal di wax itam ci communiqué bi nga xamante ni nag moom mi di njiital mouvement Thiès d'abord di Habib Vité nag daal di nay ñaawlu bu baax baax euh, mbiru violence yi nga xamante ni daal nemmeeku nañ ko ci langue politique yi rawatina la nga xamante ni nag moom moo am diggante nag foofee ne ca Ndakaaru Njaay mu di waa ak ak waa Sàmm Sa Kàddu moom mi di Habib Vité nag mu ngi mu ngi interpellé bu baax a baax ña nga xamante ni nag ñoom ñooy ŋànk euh, langue politique bi di saa itam interpellé waale ña nga xamante ni nag ñoom ñoo di suñu kilifa yi rawtina ñi ngànk bi réew mi ngir ñu gën a aar nag kaaraange askan wi ci jamono bu nga xamante ne daal lii di campagne bi door na waaye tam sax yenn saa yi dañ ci gis ay jàppante yu nga xamante ni nag dafay daal di saa lor doomu aadama yi moom Habib Bité nag ci daal di maanaam tënkee ay kàddoom nag ne Sénégal daal la nga xamante ni moom moo di jàmm dafee war a am waaye tam lëkkaloo maanaam cohésion nationale bu nga xamante ni daal dafee war a am moom Habib Bité nag sax daal di ñaan daal askanu Sénégal ñu daal di def campagne bu nga xamante ni du am benn eh, xiiroo ak ŋaayoo ba fukki fan ak juróom ñaar Sénégalais daal di tànn député yi nga xamante ni ñoom ñoo leen doy ñu daal di leen teewal foofee ne ci pencum ndaw réew ma mbokk yi mu noonu lii moo gën a fës tey ci xibaar yi rawatina nag ci seen revue de presse bii nii ànd ak yéen eh, bis bu nekk nag waaye nag du ñu ko tënkee fii nii dañuy daal di xuusandi ak yéen ci la nga xamante ni moom moo di eh, ci suñu rubrique fait divers bi nga xamante ni saa su nekk dañ koy ànd yéen mu nekk nag mbir mu nga xamante ni dañ koy leeral ak yéen faram-fàcceel leen ko bis bu nekk rek yéen itam ngeen xam naka la mbir yi demee mbokk yi. dañuy dem ci diwaanu Joal Fadiouth daal di ñëw ak yéen ci nag nag ci mbiru la nga xamante ni moom moo di viol bu nga xamante ni daal daanaka ab xale bu toll ci fukki ak ñett don jàng daara alquran moom nag sëriñam moom moo ko daal di biiral loolu nag mu nekk na mbir mu nga xamante ni sax itam waa këram moom xale bi yéex nañ ko gis yéex nañ ko xàmmee ndax nag xale bi euh, mbokk yi xale bu nag daanaka toll ci fukki ak ñett dañ ko daal di tëddee mu jaari fa ëmb ni mu demee nag suñu waaj yi moom moo ñu koy dal di nett ñu teelu ko. d'accord man de euh, damaa gis ñoom yaayam muy dakkante xale bi ma woo Saybatu ne ko Saybatu lu xew mu ne ma kii def maa teg gàcce ma ne ko ban gàcce la la teg mu ne ma dafa ëmb ma ne ko ku ko ëmbal mu ne ma nee na ma sëriñ daara bi ko doon jàngal alxuraan ma ne ko ndax yi yéen dem ngeen ci moom ñu ne ma demuñ ci moom dañoo dem ci yoon bind nañ plainte dem nañ def euh, écho bi. mais boobu ba léegi ñu ngi leen di ne dem leen ngeen indi kayit mbee dem leen ngeen indi kayit mbee te ñoom instant yi xamatuñ ci lan lañ ne te dèjà démb ci guddi ñi nga xamante ne ñoo bokk ak waa ji ñëw nañ fi nee na pour ñu def ndàmpaay ñu baal leen ak ñu retiré plainte d'appel bi yem seen diggante loolu pour la la man ma yaakaar ne viol crime la loolu dañ koy tere mais bu fekkee te jii ak nit ñëw na def comme xale bu toll nii ñu taxaw di ko di ko taxaw di ko di ko di ko minimiser bu jalle mën na koo defaat keneen après ma laaj la ma ne ko yéen damaa bëgg léegi ñu def leen ñu ne ma ma ne ko ndagam bu waa ji dëkku fi te mu daw te ñu xool nu ñu mun a def ñu dem këram bu ñu ko fa fekkee toog waxtaan ak moom jàmm ak salaam euh, bu nangoo ñu jóg ànd ak ñun dem gendarmerie mu toog fa boo keroog ñuy lijjanti affaire bi après ñun ñoom ñi tamit maanaam comme dëkkuñu fi loolu def leen problème ma dem euh, ànd ak jëkkër ji ak ndeyloo ak euh, benn grand bu nekk ci garage bi kooku ñoo ànd dem ba ci place kër waa ji ñu fekk ñu ko fa ñu jubal dem place ba dem fekk ko fa ñoo ak nuyante ak moom laaj ko ñu ne ko xale bi ndax xam nga ko mu ne waaw xam naa ko xale bi maa ko yar ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko ah xale bi de am na lu ñu expliqué ndax noonu la demee mu ne ma xale bi lépp lu mu leen wax dëgg la lépp lu leen fàttee wax dëgg la man maa def léegi damaa bëgg ñu toog waxtaanee ko ñu xool nu ñu koy doxalee ma ne ko fii nag comme dem nañ ba agsi yoon amatul waxtaan waaw il faut yoon def liggéeyam waaw dessin ci loolu lañ toll. waaw loolu tey su tey ci bëccëg fii man dégg naa ko fii ci suuf garab bi euh, dañ faa toog am ñu fi ki fi jaar mun a mu mu waxtaanal mu dem ñibbi ci diggante boobu laa génn sama néeg ñoo fekk la ñoom ñu toog ñu ooma ñu ne ma waaw fii ma ne ko waaw ñu ne ma gars yi li ñuy wax nag yow loo ci wax ma ne ko lan. mu ne ma dëgg naa dañoo ñëw fi nii di leen proposé xaalis ay nee na pour ñu ñu ñu yëkkati cinq cent mille jox leen ñuy dem retiré plainte bi pour affaire bi ñu ñu waxtaanee ko seen biir ma ne ko ñii xiifuñu avenir xale bi ëpp na cinq cent mille soo leen ko jëlee man mi sama wàllu bopp man may jóg dem porte leen plainte yéen ñi nga xamante ne yéenay jël xaalis bi xaalis bi ko kenn laal man damaa jàpp ne bu demee ba àgg ci yoon dañoo war a xaar yoon def liggéeyam bu ñu àggee tribunal bu ñu leen àttee ba pare fekkee waa ji koy daan dañ koy daan peine bi ñu ko war a daan teg alamaan alamaan boobu la la lañ war a jox leen ko mais du ñoom ñoo war a jóg ñëw ci ñoom di leen laaj xaalis pour ñu yëkkati jox leen ko man loolu nanguuma waaw waaw parce que démb bu problème bi amee ci bunt buntu boutique ba gendarmerie taal na otam ñëw na boo fekk ñu foofu àgg nañu def nañ seen liggéey récupéré nañ waa ji yóbbu ko waaw waaw woo nañu xale bi jigéen bi ak euh, papam ñoo dem na papam ak xale bu jigéen entendre leen côté boobu pare na après dem ba benn instant ba ñu ñibbisee ma laaj leen ñu ne waa dem nañu gendarmerie defar nañ papier yi ba pare ma ne ko léegi ko lan moo des ñu ne ma ah, instant yi ñoom xamatuñ ci dara ma ne ko d'accord kon toog la ngeen dégluwaat leen ci bëccëg bi la ma fekkaat bi ma toog mu ne ma woo nañ leen nee nañ leen euh, pour ñu jël xale bi yóbbuwaat ko hôpital xaw ma dafa am benn docteur bu ñu leen di booleel Euh, daal maanaam jëkkër ji ma li ma expliqué leerul ci samay nopp neen dafa am papier yoo xamante dañ ko war a réglé waat ma ne ko ah ma ne ko man man ci li ma jàpp demee ba nit ki ñu jàpp la kirtim ñu taxaw laaj la nga avié yëpp nga ne ko yow yaa ko def pour man kooku amatul leen loo xamante ne dañ ciy xaar daa yaakaar waaw kon dem na def la kii am écom euh, écom bi génn na dafa ëmb te moom avié na nee na moom la foofu foofu yaakaar naa amatul luñ ci li jëndi waaw waaw parce que te ji su demee ba nga xamante ne yoon taxaw na war na def mën a war na mën a def liggéeyam bi di xaar xaaraan yu ñuy lijjanti ay ay kayit affaire bi depuis ñun depuis vendredi lañ ko yëg ba tey jii lundi mënuñoo am dara lu leer suñuy nopp loolu dañ ñoo xaw jaaxal tuuti waaw. Euh, mbokk yi mu ngi noonu nag kon loolu moom moo xew foofee ne ci diwaanu Joal xam naa saa du ñàkk ñun itam dinañ fa jéem a dem andi leen fa ay xibaar yi nga xamante ne day leer nañ Eh, comme ni ko suñu naataango amee foofu rek ndax nag lii nekk na cas bu nga xamante ne daal cas bu sensible la ndax tey jii ni ngeen gis eh, maanaam eh, koo xamante ni daanaka dafa ñëwoon det ngir yor boutique am waaye tam di jàngalaale xale yi ñu ne la yow yaa ëmbal xale bi nga ne yaa mën maa ko ëmbal xam ngeen loolu moom doone waar trop nag te moom nee nañu ah, dafa avoué wul tiitul deful dara xam nga yen sax nit maanaam. def dara yaakaar ni day tiit ak yooyu mais ñeneen moom tiitul deful dara dafa daal di xam ne que nee na moom moo yar xale bi léegi nag ko xam ne danga ko yar nanga nanga mën a ñëwee di ko yar a pare ànd ak moom ci ko am 13 ans doon jàng xale bi sax da doon jàng de xale bi da doon jàng te itam waajuram bu jigéen sax yéexoon naa xam la nga xamante ni moom moo di ëmb bi il a fallu que am keneen koo xamante ni ñoom ñoo dëkk kooku nag moo ko daal di forcé ne ko kat ji il faut que nga waxtaan ak moom ndax sa doom ji daal dafa mel ni dafa ëmb. loolu daal moom moo dal di xew foofu gannaaw nag témoignage yooyu am na itam beneen femme bu xam xamante ni moom moo ngi woon ca koñ ba ñu déglu ko moom itam mu daal di àndi ay kàddu seedem ci la nga xamante moom moo xew. ma ne man heure julli bu jotee day jóg julli xale ba ndaw la treize ans la. treize ans treize ans. billaahi wallaahi heure julli loo ma ne am na mu jógal julli. ma bëgg julli mais ba ma léeg damay toog ba si bu waxtu bi jotee day mel ni say raxas sama xel bi baax na ma ne ko amul benn problème xale bi xamaluma ko dara lu ñaaw man tey ñeme naa jël sama loxo teg ko ci kaamil waata raan billaay wallaay taalaay maanaam xalo ku juur ku juuree di nga yërëm man dama ko jàpp comme sama doom parce que xale bi daf maa jox respect daf maa jox ñëpp la ma jox yéen sama xarit la léegi dañoo toog ba barki démb ma jóge port maam jaara ñëw na ma ndeyloo ma ma ne ma seetlu nga raad ma ne ko raad ko ko dar yaay mu ne ma mu ne dafa ci borom mu ne waaw ma wooraat mu ñëw place fekk ma place Mame Diarra ma xool ko bi muy dox di ñëw ma xam ne kii dafa ënd parce que feebaram sa jumbax war ta tax ci xale ma xool ko affaire ween yi ak fii yëpp muy tëkkate parce que man ndox ma man maga yar tam sa war ngaa xam nit bu ëmbi ak bombul dëgg la léegi mu ñëw si la dem ma bàyyi ba ci lendemain ma jaaram mu ne ma ma ne a mu ne ma a mu ne ma ma ko restaurant dafa ëmb jaara ne ma déedéet loolu mënta nekk ndax yéen ne na feebaroon laa ne ba démb yaa ji di ndugg sama place bi dama bëgg nga wóoraale a doon nga taxaw nga wax raabi waxtaan la moom te bu ko ndax xale la xamul dara yóbbu ko hôpital ndax ko boo demee ñu defal la test nga xool ndax dafa ëmb ëmb ndekete ëmb na ba am cinq mois bu manqué une semaine waa ji da ko yàgg tëddee man ñun bañ ñëwee si waa ji rek bañ Elhadji Ndiaye waxee moom mu ne waaw man la ba pare waa ji si boppam mu ne moom fële la ndekete si la de moom si boppam moom ki ko def lii moom moo ne ko yar waaw ko tëddee moom la muy seexoon moom da doon jàng si alxuraan fii si moom seexuñu woon dara da ko doon jàngal weer bu dee ñu fayit ndekete benn jour ba nga ko njëkk def ko jox dara mu naan bu naanee bi nelaw mu ne ko naanal garab bi ndax day gën a raxas pour nga gën a mën a mokkal alquran ñu def nee na def nee na dafa jóg bi di metti xam naa da koo tëddee ba pare dindi ko tëddee xale bi dem dem am na loo xamante ne bu la ko mën a wax sa waajur sama xale bi waa xale bi ci ñemewu la wax léegi bi mu amee ba ko ko defee na def na ko ñetti yoon yaay ji na ko dama jàngi rab na ko jàngiwu ma du ma jàngi moom def ko moom moom kii am na ñeneen ñu ngi ko doon proposé ba ñooñu bàyyi nañ jàng si moom gina yàlla dëkk fi waaw bi moom waaw gina yàlla mais moom da leen doon jàngal alxuraan rek moom kii fee leen njëkkoon a nekk watu atelier Modou Kane bi noonu kii bi mu def si daal di ñëw fii hmm. kon daal rabi démb lañ man na parce que boo ëmbee rek man lay remarqué man damaa mën a seetlu xale mais yaay ji xamu ci ko bi ak yëpp mu jóge mu dàqanteeg moom ndax xam na hmm. ko am na loo xam ne doo ko def xale kon mi ngi noonu mbokk yi lii moo xew Joal ci mbirum xale boobee nga xamante ni sëriñam moo ko doon jàngal ba finalement daf ko daal di ëmbal noonu lañ ko mën a waxee léegi nag way juru xale bu jëm moom dafa xaw a jàkk tuuti ndax nag nga yor sa doom itam kon nag lu ci mënti am daal ngeen xam ni que noonu la demee ku ci waay mën a jàpp jàpp ci yoon itam def ci liggéeyam bu ëllëg ci biir daal ñu xam fan la mbir mi féete jërë ngeen